d'urbanisme dans nos collectivités territoriales. Les gens, ils viennent, ils s'implantent, chacun construit sa maison, des promoteurs font des projets, mais personne ne prend en compte les questions de voirie, de réseaux euh, divers. Et in fine, on se retrouve dans des concentrations humaines sans aucun réseau. Et après, on dit à l'État de venir Et ça, c'est un problème que nous traversons dans notre pays depuis longtemps. On a hésité à faire les grands investissements qu'il fallait faire à un moment. Et aujourd'hui, avec la pression démographique, forcément, la demande en eau peut connaître des difficultés, la demande en services d'assainissement peut connaître des difficultés. Mais vous êtes en train de faire du rattrapage. Le rattrapage, c'est KMS3, c'est l'usine de l'unité de dessalement des eaux, pour répondre de manière ponctuelle à situation de croissance de la demande dans Dakar parce qu'il faut augmenter la capacité Mais dans même temps aussi, il faut faire autre chose ailleurs à l'échelle du territoire national. Et du point de vue de l'assainissement, euh, la ville de Rufisque. Je voudrais en féliciter le gouvernement, vous en féliciter. En féliciter le président Macky Sall, parce que l'assainissement de la ville de Rufisque le président Abdou Diouf était venu à la des fêtes présider un conseil interministériel sur l'assainissement de l'office. Aujourd'hui, il y de grands projets qui, en, qui sont en train On s'en réjouit. Mais dans le rapport, et ça m'a fait tiquer, monsieur le des Finances, ce projet de 10 villes, c'est ces 70 milliards annoncés. Il y a un gap de financement de 16 milliards. C'est autrement exprimé entre 20 et 25 du portefeuille de projets qui risque de en Or, c'était des engagements sur lesquels le gouvernement, euh, que les gouvernements avaient fait et qui nécessitent forcément une mise en œuvre. Et je voudrais vraiment que, tenant compte de l'importance de ces projets des dix villes, que vous accompagniez le ministère de l'eau et de l'assainissement pour le bouclage de ce financement avec votre collègue de l'économie. Monsieur le ministre, l'autre problème que nous avons, et quand on examine le budget dans ce format budget-programme, une plus grande cohérence dans la gestion des projets, dans leur ancrage. Aujourd'hui, et la mission d'information peut-être l'a même révélée, lorsqu'il s'est agi de cueillir les informations sur les efforts faits en matière d'assainissement, il a fallu aller piocher dans différents ministères. Je ne comprends pas l'option qui consiste à dire qu'un projet comme le projet de gestion des eaux pluviales peut relever de la responsabilité d'une agence qui relève de la responsabilité du ministère des collectivités territoriales quand vous-même vous êtes ministère de l'eau et de l'assainissement et que ce projet est fondamentalement un projet d'assainissement. Je pense qu'on a besoin d'une plus grande lisibilité, parce que c'est cela aussi la lecture que nous devons avoir, une plus grande lisibilité dans les, dans les ancrages des, des, des acteurs qui interviennent, parce que malheureusement, euh, je le disais souvent en commission, si on avait dans la maquette budgétaire une mission qui regroupait l'ensemble de ces interventions, ça aurait permis aux parlementaires que nous sommes avoir une lecture beaucoup plus aisée. Mais quand les choses sont éclatées, alors que la mission concourt à la même finalité, on a un problème de visibilité. Ce n'est pas de votre responsabilité, vous êtes ministre de la République, on vous donne des services qui interviennent, mais je pense qu'à l'échelle gouvernementale, il y a un besoin d'une meilleure harmonisation de ces interventions pour que nous puissions euh, avoir des informations. Pour le reste, la tâche elle il faut donner de l'eau et de la, faire dans un contexte de, de, de, de pression démographique terrible dans notre pays. Mais aujourd'hui, si vous réglez le problème de, de l'eau sur Dakar avec l'unité de dessalement et KMS3, forcément, on va, le, Dakar étant saturé démographiquement, il faudra penser et anticiper sur les besoins dans la zone de Thiès, de Mbourg, parce que ce sont les nouvelles régions attractives du point de vue euh, de la domiciliation des, des populations. Voilà, pour le reste, je vous souhaite bon vent avec euh, l'assainissement coûte cher. Notre pays a souvent hésité sur les investissements à faire parce que là où on met un franc pour amener de l'eau, il faut calculer peut-être entre 5 et 10 francs pour assainir. Et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, mais le président de la République a cette ambition et nous allons vous accompagner dans ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Euh... collaborateur des ministres maa ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum euh, monsieur le ministre may nuyu directeur solde moom frère Charles Fall ak euh, monsieur Diop Alune di nuyu sama grand frère Lamine Diouk ak euh, mon frère venu de Mbour Thioubou ak euh, Mamadou wan monsieur le ministre ma am bala may di xuus ci waxtaan bi rekk ñetti yóbbante bi ci njëkk forage bu bees la bu nekk Boulom dans la commune de Niaguis ñoom dañu am problème pour seen forage boobu dox ñu bëggoon ci ay solution monsieur le ministre beneen bi sama collègue Ami Ndiaye ñi bi am ko ko fi waxal muy problème mu rongoñ euh, monsieur le ministre nee na bëggoon na nga taxaw ci beneen bi sama naataango sama collègue a seen bu Thiès mu ngi laaj euh, extension d'eau pour le quartier de Médina Fall dans la commune de Thiès Nord donc monsieur le ministre pour ñëw ci waxtaanu tey bi nga xam ne dafa toll ci sa wàllu ñu càmbar sa budget voteel la ko pour nga mën a dem liggéey yi dañuy féliciter son excellence le président Macky Sall ndax euh, budget au assenissement en 2011 mu ngi woon ci 18 milliards tey ñu ngi ci 2021 avec 124 milliards 630 millions loolu day firndeel euh, euh, place bi ak gis-gis bi nga xam président de la république am na ko mais xam na ne les demandes son fortes et que il nous faut des solutions pour cela di leeral aussi que ne taux hydraulique rural en 2011 mu ngi tolloon ci 80 pour cent et taux d' rural bi aussi mu ngi woon si ci 34 pour cent monsieur le ministre. taux rural en 2021 mu ngi ci vingt 95 virgule cinq pour cent taux d' assainissement toll ci 43 virgule 47 virgule 3 pour cent en 2000 2020 du moins. monsieur le ministre lu tax ma leeral lool dama bëgg nga ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy wàllu eau assainissement. biñ la dénk fi nga fi ko président Macky Sall fekkoon ak fi mu ko yóbbu tey dafa am solo du dañuy comparer les régimes c'est pour fair des éclaircissements wan population bi li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne biñ ñu joxee réew mi ak léegi fi ñu ko fekkoon ak fi ñu ko indi tey dafay jaadu ñu di ko leeral loolu moo tax ma indi loolu monsieur le ministre félicite la ci sa reconduction euh, di rafetlu vraiment collaboration bi nga xam ne amoon nañu ko bi may yor la commission éducation ak jeunesse nga nekkoon ministre de l'éducation ñu amoon nga amoon taxawaay bu rafet ci diggante yow sa ministère ak assemblée nationale nga nekk nit ko ubbeeku ku mën a déglu te lu ñu la dénk rek aussi def nga ci ay résultat ñu la ciy félicité bu baax di féliciter son excellence le président Macky Sall pour la pour le centre d'épuration bi nga xam ne am nañ ko la station d'épuration au niveau de la commune de Mbour mais monsieur le ministre rafetlu sa ñëw ci inondation yi laalee département de Mbour ñëw nga Mbour ñëw nga Joal mais monsieur le ministre xam nga ne tey réellement Mbour am na problème assainissement quartier yu mel ni jàmm gën Diamaguène 2 zone Sonatel ak quartier yu bees yi nga xam ne moom la Mbour am muy liberté 1 liberté ak ONCAT ak li ko wër parce que dañu dañu màgg mbuur dafa màgg euh, je remercie au passage le président Seydou Diouf wax na ko dans son intervention dëkk yu mel ni Thiès ak mbuur tey programme yi à part Dakar ñoom ñoo ëpp ak Touba ñiy laaj assainissement parce que seen population mooy màgg monsieur le ministre ma bëggoon nag vraiment nga xool bu baax amaat taxawaay amaat ak seetlu defal ñu une discrimination positive pour le département de Mbour te su ma ko waxee sama xel day dem ci Joal Fadiouth Joal Fadiouth gis nga ni muy def bu nawet jotee dañuy wax Kër masaar mais yaakaar naa ne Joal Fadiouth bokk na ci ville yi nga xam ne aujourd'hui bokk ñoo gën a Euh, euh, euh, ñoom la gën a inondation di di di sonal temps wu nawet monsieur le ministre bu ñëwee ci wàllu ndox branchement sociaux yi comme ni ma la ko waxee mbuur dafa am quartier yu bees yu juddu quartier yooyu dañu am problème mu ndox te loo c'est vital yaakaar naa ne mënuñu def dara te amuñu ndox gis nañu nag taxawaay bi ci gouvernement bi am gis nañu aussi jéego yi ngeen ci def mais monsieur le ministre encore une fois cri de cœur boobu bëggoon nañ ko wax pour la commune de Mbour la commune de Joal la commune de Nguéniène aussi ak commune Fissel ak commune Thiadiaye ñu nekk département de Mbour te am nañu yaakaar bu baax na di nga ñu indil ay réponses adéquates par rapport à à ces à ces problèmes en tout cas vous avez tous mes encouragements que Dieu euh, vraiment euh, euh, vous accorde une longue vie pour nga mën a àggale li nga xam ne mooy liggéey bi. jërëjëf monsieur le président je vous remercie je donne la parole